ginnaaw ba mu jébbalee nguurug Sénégal toll ci ñaar téeméeri million ci suñuy koppar waaye itam delloo ko baat bi nga xam ne ni moom la am ci askan wi moom xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jël na itam beneen dogal di ndigal loo xam ne nii ñu ngi ko jëmee ci mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne nii dañ daan bàyyeekoo seen ay gox di ñëw ci kanamam di amal ay ziar doon ay daayira yu takkoo takk yoo xam ne nii dañuy doon ay téeméeri téeméeri doomu aadama dajaloo ci résidence Khadim Rasoul wala itam kër gi nga xam ne moo nekkee ci Daaru Minam jamono ji nag xalif bi joxe ndigal ne mbooleem daayira yooyu mën nañoo dakkal li nga xam ne moom moo di ziyaar yi ba fi lekk jëmmi jamono loolu ndigal nag ki nga xam ne di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi nga xam ne moom moo yore kàddu yoonu murit décision boobule nag ñi ngi ko jël ci dëkk bu sell bi di Touba ginnaaw ba ñu jàppee ne lu toll ci juróom-ñaar fukki doomu aadama ak benn laale nañu ak moodu moodu bi nga xam ne nii mën nañ ñi moom moo fi dugal jàngoro ji te wàll lu toll ci juróomi doomu aadama yoo xam ne dañoo bokk ci ak njabootam waa kër docteur di fësal ne jamono ji am na yeneen moodu moodu yoo xam ne nii ñu ngi dugg ci biir dëkk bu sell bi di Touba di jaare ci yoonu suuf yi te ba nëgë ni ñëwaguñ kër docteur kon ñuy ñaan ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci dëkk yu mel ne Italie ak li nga xam ne moom moo ko wër ñu jàpp ne jàngoro ji dafa law lool daal di ñëw kër docteur ñu leen di mën a li nga xam ne moom moo di law gi jàngoro ji daw jamono ji ci réew bu Sénégal ñu daal di koy mën a dakkal